magalu ren bi dafa nekk màggal bu particulier ndaxte dafa taseeg euh, feebar bi di mbas mi nga xam ni dafa wër àddina bi dugg senegal euh, te bi bu feebar bi laaj ay comportement comportement yooyu nag yëpp autorité sanitaire yi wax nañu nu mu war a demee te comme xalif bi nee na nañu sol masque di raxasu ba set di jëfandikoo également gel hydroalcoolique bi loolu moo tax ma yaakaar ni bu ma dee taalibe euh, war naa mën a man tam jàpp ci loolu nga xam ni moom la xarit bi digle mooy masque yooyu moo tax tey ma ñëw ànd ak ñi ma war a àndal indi jébbal xalif bi cent mille yoo xam ni dañ koy joxe ci màggal gi ak 1000 bouteilles de gel hydroalcoolique yaakaar naa loolu nag contribution la bu modeste rek boo xam ni def naa ko ñeneen ñu bari ñu ngi koy def ndaxte xalif bi dafa fixé objectifu 5 millions de masques pour le màggal waaye yaakaar naa ni balaa màggal gi ak contribution yi danañ ci egg wala ñu passé ko. xalif bi daal Cheikh taxa di feebar bi jógee ba tey ah en tant que xalif général de Mourides wane na yoon wane nañ ko muy raxas loxoom pour nit ñi def ko wane na ko wane nañ ko mu sol masque pour nit ñi di ko jëfandikoo ndaxte loolu autorité sanitaire yi ñoo ko digle ci loolu nag yaakaar naa ni taalibe yëpp kuy dégg kuy di nga ko dégg boo boo ñëwee ci màggal gi li ñu wax ci ci mesure barrière yooyu benn di ci sol masque di nga ko de kon looloo tax ma ñëw tey indi sama contribution jébbal ko xalif général des mourides muy Cheikh Mountakha Mbacké